xam nga ci walu théâtre ñun li ñu def lu ci gën a bëri Sénégal yi duñ ko xam parce que am nañ habitude euh, bi ñu liggéeyee par exemple bi ma génnee école nationale des arts Pape Faye laa njëkk liggéey ñu def théâtre sur scène ma jóge fa liggéey ak les Gueule Tapée bu feu Makodou Mbaye après ma créé sama compagnie la compagnie théâtrale femme te femme bi ñu ko créé rien que femme dem naa ci euh, euh, en Tunisie ñu am fa le grand prix du jury international avec une de nos pièces nous jóge faire dem au Mali festival des réalités de Bamako dem euh, FITEP du Bénin dem Cameroun aussi Nous avons joué Fofou. après avec les Gueule nous ñu ànd dem Festef a la même chance ma am foofu le grand prix du meilleur comédien on a la on a eu la la la meilleure pièce ñu jóge foofu ma avons liggéey avec Ben Suisse bu de Gilles Lebert Nous avons fait le festival de Limoges.

Nous def les soldats inconnus au Maroc ce am tir bo xamanteni parce que ci sommes au festival d'Avignon. festival d'Avignon, comme le festival de Limoges donc festival parce que c'est un festival qui fait au moins au moins plus de 300 spectacles par jour waxuma mois bi waxuma semaine par jour il y a plus de 300 spectacles par jour parce que ay théâtre ay théâtre ay théâtre théâtre toute la ville dañ koy changer en décor théâtral day am sax lu toll espace bu toll nii ñu fay def théâtre spectacle de conte wala théâtre mono affaire yu demee noonu donc et théâtre boo gis de midi à 23 trois heures dafay programmer ay pièces foofu yàlla dogal na dem naa fa donc li gën a am solo pour man dans ma vie artistique théâtre moom ko jox waxuma cinéma parce que man cinéma dese naa ay dese naa am na lu ma war a jàngaat ci wàllu cinéma lu bari mais wàllu théâtre boobu yàlla dimbali na ma ba

j'ai dit non au début. Euh, ça m'a fait un peu mal quand même. Parce que boobu leuse moo si jàpp ni ma soppee pour nga dem fële dina metti te boobu képp kuy artiste pour la plupart boo sañoon da ngay bokk ci série mais man dañ ma j'ai dit que c'est pas possible pare au monde pour pour pour pour jouer moment boobu. Euh, yàlla def aussi ñun artistes yi ñi xam ñoo xamul mais ñun suñu biir xamante nañ.

ne ma bay ana mère bi jox ma sama femme sama chérie bobu ma jox ko sama yaay muné ko soppé mi ngi na ra yak wéri wéri muné ko la ko man la sa chérie sama yaay ne ko ha ah, eh Cheikh naka mu nam na la nangam nangam chérie muné ko nak fi film bi toll ni soppé mo ci manki dama koy wo day bañ sama yaay ko bañ ni ko nga bëgg mu ñëw muné ko suba bu ñëwoon ñu def ko sama yaay ne ko ma dal coupé ni ma yow suba da ngay nekk ci wiiri wiiri da ngay tourné ci muné ko lo xam muné ma da ngay tourné ci wiiri wiiri sa ay nawle ñoo ci nekk film bi ñepp bëgg nañ ko te buñ la yaakaaré pour nga ñëw def ci sa ben affaire dang ko ci wara def yow ya soof yow nangam na commencé ma xas naa parce que sama wir wir ñepp ci duggon te sama yaay amna ak mom relation bo xamanteni xana kay dé dee moy tax may lox lox ak yoy te kay dé sax bu ma ko waxoon ñeme naa ko parce que lu ma wax ma def ko billahi wallahi donc mu ne ma demal ndigal la won pour man non la ñëwé ci ci ci wiiri wiiri ba pare ñoom ñëpp nag macha allah ñu téye ak man benn relation boo xamante ni bañ koy am man ak ñoom wiiri wiiri xewul Mayacine Dial xewul parce que ñoom ba ñuy xamante boobu Saneex fekk na maamam laaxu ñu dem cees ma toog fa deux jours ak ñoom fekk avant loolu invité nañ leen festal ba ñu ñëw boobu ñoom génne guñ télé te lañ commencé am relation may dem cees di fanaan kër Ablaye Sow di leen fréquenté ba am donc concrétisation le, je pense yàlla dimbali ñu nag mu ñëw ñu jox ma sama cër féexal ma ni ma defal loo bëgg a def parce qu'on a on a fait appel à un ami mais on a fait appel aussi à un professionnel du secteur bëgg sa xam-xam bëgg sa expérience moo tax wiiri wiiri bi ma ko doon joué damay yéeg rek damay yéeg parce que dama amoon yéene pour jàppale leen ci loolu parce que ku dompatul ku sotul ya ya ya ya, ku seetaan rek yaa sot xam nga te Wiri Wiri toll na période boo xamante ni moom ak yeneen séries yi fi nekk yëpp ñu ngi doon dundal télévision Sénégal parce que dañ daan dem di jëli ay telenovelas Mexique ay Brésil ay yeneen mais tey jii ku xool télévision sénégalaise yi xam ni séries yi euh, séries sénégalaises yi am nañ seen place. Euh, ban jàngat nga am si ñu doon critiquer naan Wiri Wiri dafa gudd dañuy Wiri Wiri rek amuñu scénario xamuñu fuñ jëm. Euh, ñooñu lan rek laa doon wax man depuis télécommande am man sonn ma. film bu la neexul dañuy wiri wiri, mais zapper nga seetaan feneen c'est aussi simple que ça te ñi nga doon wax yoy yëpp ño gënoon scotché wu ci ci série bi parce que man gis na ci sama wal bob et li que moi man gëm na ni wiri, wiri bokko na ci wala bok bok na ci série yi nga xamanteni ni ba abadan sénégalais yi duñ ko faté wiri wiri ci la gor gor ci la bok Maya Sénégal ci la bokk ak yenen ak yenen yu fi am mais ñet yoy man ma ngi lay wax ni la Sénégal du ñu ko faté bari na fi yenen yu judd yu neex yu am solo mais yoy man dafa am fu ñu toll ci man te wir wiir yi li gëna a moy xam nga des fois jalousie mëna na animer nit ba mu wax parce que wir wiir yi comme par hasard ma wax la au début daaw ma ko ah. non daaw ma ko mais beaucoup ko daawul tamit après yow yaay am problème parce que do nek sa kër bo ñëwee sa kër bu fa ñetti télé amé ñetti télé yeb wir wir la ñuy do doo waxtaan ak sa jabar do waxtaan ak sa dom do waxtaan ak sa yaay parce que ken talu le finalement da ngay obligé sa machine ngay yor wala nga yor sa sa sa téléphone di ci liggéey à la limite fo nga top ci di wax parce que même ñom bu ñu toogee après ci loolu lañuy ñuy wax mënatoo wax leneen donc man daaw ma ko seetaan mais après je me suis dit non mais tiens les gens s'intéressent à ça je dis pas que tout est nickel hein je dis pas que tout est nickel mais comme nit ñi bëgg nañ ko jaral na leen yenn yi commencé à affaire bi Tu laa commencé à internet bi di xol di xol ba nekk au diapason de tout donc ba bi may ñëw ci série bi moment boobu la toll won légui maintenant quand quelqu'un dit y a pas de scénario ou pas man je pense que les Sénégalais ils gagneraient beaucoup plus ñu yokk lu neex ñu yokk lu baax que di attardé wu ci ay critiques wax naa la sank au début série yu bëri yu fi amoon lan la ay Isaura. Royal yàgg loolu ay rubis hmm? après yoy ñu indil ñu yu lan mo am ci série yoy? dañuy coloniser à leur façon mais le Brésil ne me parle pas sa culture le Mexique ne me parle pas avec sa culture Té ñom saa su nek dafa am ñuy gëmloo ay affaire gor jigéen day nek sen pièce. yi n'est-ce pas ay affaire doom ji wala yaay ji mo takk ki après papa ji tak nako. Mom mo am sen ay série sénégalais yi suñu yaay yi sax dañ koy sétane every time bu ñu koy teg heure yoo xamante ni julli sax mën na tax yow doo ko doo julli ndax seetaan loolu yaa ngi dégg ñoom ñëpp ci loolu lañu ñu basé wu yeewu ci mosuñu critiquer defuñu dara yow bu ñu indilee loo xamante ni yaa ko moom qui te parle ñëw ba sa biir kër da nga a euh, lu tax soppe. soppe waroon commencer question boobu parce que <laughs> mën na ma yéegloo euh, dafa am sama benn xarit mu ngi tuddoon Aïssatou fay ñoo bokkoon seconde bi ñu nekkee lycée Ablaye Sadji dafa daan faral di wax naan Ibrahima Mbaye mooy sama soppe du mooy waa sama soppe yow affaire yooyu xam nga bon ba affaire bi gagné classe bi yëpp ñëpp di ma woowee soppe Aïssatou Faye euh, yàlla def aussi boobu laa gën a commencé nag di xarañ ci wàllu théâtre au niveau du lycée Ablaye Sadji mm-hmm. parce que pionnier laa ko commencé mm-hmm. yàlla dogal aussi tur bi bien def ci barke on dirait euh, ubbi ma lu quoi tu vois. bi ma demee après le bac ma dem école nationale des arts bi may def deuxième année am beneen comédien bu autour d'Ibrahim Ibrahima Mbaye comme man. tey jii moom moo nekk Sorano. Euh, ñu préféré di wax kooku Ibrahima Mbaye ñi ma xam man di wax donc parce que bu ñu nee Ibrahima Mbaye ñun ñaar ñëpp dañ doon uyu après ñu préférons woowe ma sopé mon ñu koy Ibrahim Ibrahima.

lu bari lu ma waroon def sama diggante ak moom après bi mu laaxoo defuma ko par rapport ak njabootam par rapport ak sa famille et tout et ça daf may hanté tout le temps. sama mm-hmm. me hante et. Mm-hmm. kañ nga commencé théâtre. ah kañ nga commencé théâtre. théâtre maa ngi ko commencé CMD pionnier du synd du syndicalisme euh, muy benn école bu nekk fii ci Tëngéej sant mm-hmm. yàlla en face HLM yi. ba maa ngi def cinquième.

de peur que j'ai failli ne pas être comédien parce que moi, dafa ni dama war la jàng te bàyyi théâtre Ou wala balaa may théâtre n'a bàyyi ba am bac ba pare bëgg ma def écarté mais avec la complicité de feu et de ak Momar nous avons fait un bon ba Nous avons fait un dossier déposé pour me concours à l'école nationale des arts Le concours a passé Le dégg résultat nous avons wax admis ñu lim ma il n'en pas après mu xam ne am amna ba paré donc fi faut ma jàppale ko. Mm-hmm. ci le commencer nag encadrement vrai bi quoi. ok euh, kan mo nekkoon sa idole ci théâtre. idole euh, c'est un peu un peu un peu euh, xam nan laa ko mo waye man sama don sama ay idole xaw nañu bari mais amon na ñuma ma fan man ci théâtre et paradoxalement parce que xam naa kenn du xalat ma génné foofu. mais man mm-hmm. sama comédien préféré. Mm-hmm. Dembi Fall <laughs> pas Dembi ma ma nekkoon koo xamante ni mënum ko muñ moom j'ai de tout lépp lu mu def dama ko doon admirer mais moment boobu il faut reconnaître que ñu ngi doon faral di seetaan grand Lamine Ndiaye avec beaucoup de joie di seetaan euh, Omar Seck bu Sorano avec beaucoup de joie di seetaan père Kolimbay père Sambawan tu vois di seetaan ñoom grand Moustapha Diop ah suñu yaay ñoom gestu consort yooyu xam nga donc ñooñu tamit yëkkati woon niveau de xamante ni ñun dañ doon rêvé un jour euh, bokk ak un plateau. Euh, noo gisee séries yi actuellement parce que télévision yi bu nekk am trois séries tout le concurrence bi bari na. dañoo bari d'abord..! je commence par les critiques avant de les féliciter dañoo bari trop bari bi nag mën naa defar parce que bari je man un ngi Nous ne producteurs yi ñu ngi donc ak artistes sénégalais même si c'est lui qui bëri pas des comédiens C'est moins grave parce que man bokk naa ci défendre Ce n'est pas parce que comédien nga rek da nga théâtre cinéma mook série qui fait def le la booy mais cinéma ce koy def pas des professionnels D'accord... Donc aux États-Unis wala feneen ñu jël Beyoncé def ko acteur principal jël 50 Cent def ko acteur principal parce que le moo le film la femme ko koy porté man bu ma gisee c'est que. diw mi am na tour mbër la war na mën a def benn affaire man damay jàpp ni moom kat naa ko jël mu bokk sama film pour yóbbaale film bi peut-être noonu lay demee xale bi rafet na xale bi nangam na xale bi nangam na dama koy jëli bu amul ci comédiens yi bu la neexee nga jëli ko mais bu ci amee je nga dem ci comédien nga jël ko mais ça n'empêche en rien ku nekk na am nga sañ-sañ pour def théâtre def sa série loolu dara nekku si maintenant série léegi daf ci am yu bëri yoo xamante ni dafa am ay normes pour dugg un peu ci wàllu liggéey bi may liggéey au niveau de la régulation xam nga film dafa am ay bases yu mu war a am te bases yooyu des fois gars yi dañ koy occulter maanaam dañ koy bàyyi au profit du commercial dañuy xool rek liy jaay ñu def ko alors que bu njëkkoon théâtre da nga doon toog sa yaay toog sa doom toog sa maam toog ngeen seetaan ko mais léegi mënatul nek parce que saa su nekk yaa ragal ñu génn baat wala image bo xamante mëna la heurter té lolu doxalul cinéma lolu doxalul théâtre lolu doxalul série man bari way bi ça me dérange pas parce que ñu ngi fay ay nit donc ñuy liggéey c'est déjà bien donc artistes yi am nañu moyen bu ñu exprimer wo té légui yomb na yombay bo xamante ku nek am nga légui sa caméra ku nek légui am nga sa machine bo mëna monter ku nekk léegi am nga xaalis boo xamante ni bu la neexee nga jàppale sa nit ni ko defal série kenn moomul série mais nañ ko organiser nañ xool scénario yi man ci koor gi passé ça fait deux ou trois koor yoo xamante ni damay organiser benn séminaire sur les contenus des séries du mois de Ramadan mais ça choque des fois tu vois des gens yoo xamante ni ci koor gi dañuy jouer ay mbir yow da nga xam ni lii dëppoowul ak suñu aada dëppoowul ak suñu dîner ci wax ci kàllaama ci ay wane je n'ai rien contre mais xam naa ni lu ci bari bari dañ ko war a defaraat ñu ci bari ñuy bind duñu ay bindkat ñu ci bëri ñuy jouer waruñu jouer ñu ci bari ñuy réaliser waruñu réaliser ñu ci bari ñuy def leneen waruñu ko def parce que dafa am pas bu ñu tëb au lieu que ñu toog ñun jàng ba pare ba mokkal nga ngi ko commencé jàng rek commencé tari maanaam ngay tari di ñëw di jàngaat.

gargot da nga daan gis ñu jël salle bi yëpp def ko jimbo pour lan pour lan donc série yi boo ci topp benn ba mu jeex da gis ñu yor oto oto oto meew mu bokk ci série bi da gis ñu yor ñoo xamante ni meew la bu ñuy ndogoo wala boog ñuy ndogu jël beurre teg jël jël jël jël nu mu sati beurre teg jël diwliñ teg jël lan fromage teg c'est-à-dire chocolat teg ñoo ñaw yoo xam naa da daan dogoo la jël lépp teg yaa ngi dégg lépp si benn pla mais tu te dis mais ça va pas qu'est-ce qui se passe dañuy imposer publicité bi te loolu c'est pas normal mu neex mu naqari du yoon du logique te loolu nag aussi annonceurs yi ñooñu ñooñu dominer si loolu te teguñu ko fenn parce que annonceur xam lu mu war a fay dafa war a fay ki nga xamante da day au début peut-être et à la fin nga bind ni diw ak diw ak diw ak diw il vous présente tel nangam mais c'est pire. da le jël de magie et l'alcool.. di ci toute la pièce magie ce la defal non n'aït-on waxante dëgg magie ce la defal on dirait que magie kon dafay jënd plateau bi magie moo jënd plateau à la limite Ce n'est pas normal est-ce que les comédiens qui jouent dedans Ils ci war am am nañ c'est ça qui fait mal bu fekkoon dañ leen ciy fay lu taxaw lu dégoût, Moi je suis pas contre mais dañ avez abusé à la limite C'est que loolu tegul ça..! ñu koy def ñëpp nag muy sama ay xarit muy sama ay doomu nday muy samay yaay muy keneen képp ku ko ci def defoo yoon et je pèse bien mes mots sans exception laa la wax waa soleil levant seen kooru soleil levant gi ñuy def mais ay publicité kese la ay publicité kese la dañ ciy gis yoo xamante ne après da nga non lii tamit mënul dem il faut que ñu xoolaat suñu bopp si côté boobu il faut ñu xoolaat ko

cérébraux blagues si yenen ak yenen quoi ok mais ñaari fànn mo ci am ben bi euh, cinéma cinéma la mën ñu lepp ñu bañ ko d'accord mais moral dafa am il faut aussi ñu si tenir compte mais bu ñu démé ba benn moment topp ay critères yu bari bari suñu suñu suñu expression dañ koy tej dañ koy confiner d'accord mais suñu morale ñun moo àndul ak fonante suñu moral mo andul ak sangu parce que tàmmuñu ko di gis suñu papa yi di sangu suñu yaay yi nangam tàmmuñu ko ci suñu moral tàmmuñu aussi yenn séquences yu sensuelles yu demee noonu suñu moral mo ñu may loolu. donc je pense que né les gens gagneraient beaucoup plus à ne pas fermer la création mais aussi à penser qu'il y a des gens qui nous regardent te ñooñu dañu am ci base culturelle bu ñuy tegu te war nañ sóor ñooñu war nañ sóor papa mi ngi koy seetaan war nañ sóor yaay mi ngi koy seetaan war nañ sóor doom mi ngi koy seetaan war nañ sóor jarbaat mi ngi koy seetaan war nañ sóor jabar mi ngi koy seetaan. ton secret avec les filles. sama secret ak jigéen ñi euh, mooy dañu bëggante on s'aime euh, man je ne suis pas féministe mais je suis très maternelle parce que ci sama yaay laa laa jëlee loolu. sa mbaam daf teel a gaañ euh, aw ma lu sama yaay moom ma yar ba ni ma toll nii lépp moo ko def si man macha allah dama am ci moom yërmande ba képp kuy jigéen ma ci yow yërmande yàlla dimb ni ma nag may def théâtre ba pare nit ñi des fois dañuy identifier wu à des personnages man rôle yi ma joué boo xoolee amu ci benn rôle bu daan bundu xataal jigéen amul benn rôle boo xamante ni dafa dafa. dafa sor wala ben rôle bo xamanteni da fay titlo nit man sama rôle souvent dama len di sagal den jox cieur den delo delloo sa su photo bi tay ji ni gis nga li ngay gis ni bi euh, wa soppe famille ñom ko jox soppe famille gis nga li ngay gis ni ñi ñu ngi Europe ñi ñu ngi Afrique ñi ñu ngi Sénégal dañu dajaloo parce que dañu am cofeel bu deggu ci man presque ay jigen rek la presque ay jigen rek la mais dama lay wax ne la lu gëna am solo mooy nit ki mën def différence entre l'homme et l'artiste Ni l'artiste le ñu bëgg soi soppe la ñu bëgg Ibrahima Mbaye nit ki mais nous artiste bi moo leen neex artiste bi la ñu jàpp ba tey jii lépp lu artiste bi def ñoom gis nañ ni war nañ participer au développement de sa carrière donc loolu mooy sama relation avec ñoom j'en suis fier j'en suis fier

man samay soppe forcé wu ma ko kenn sama foofu man forcé wu ma ko kenn je joue spontanément joué ma pour am ay soppe même bu fekkee ci li may joué macha allah ñoom ñëw nañ damay sant yàlla damay sant yàlla bu baax.